ay ca final poids lourd yaa ngi noonu diggante Ngagne bu Ndiaga Niaw ak Babacar Tine Ndondol ndeysaan fii ci terrain Gaal gi 17 décembre 2023 nena len leen sañ production ma fi woto won tegal mo 3 millions ni ci final mané di bëgg képp ku seetaan di fal TV di bëgg abonné yi képp ku ñu seetaan té abonné go nga gaw abonné gaaw ndeysaan rang muy partager ak muy abonné commenter aimer yal ko de notification bi di bëgg waa Djilass sam gis naa seen solidarité bi gis na ni ngeen taxawoo lamb ji gis naa bayre ji gis naa lamit ke gis naa bagage yi ma ne lamb ji macha allah ndeysaan su lay sañ ɓenga ya jumat no xooytu men ndeysaan xagare ndeb Abdou Sagne xagare ndeb Ami Juma ndeysaan xagare mag Mamadou Ndiaye mag Cheikh Sagne tuku yaaya mag Babou Ndour mag May Aram hee mag Pape Sow ñaaw waaw waaw di bëgg Ahmed Sangot na Ngodji borom Joal borom États-Unis nu lambalog ndeysaan ma ne docteur Firosa du ma o yal parmarin wala grand yow wala mbaaw arbitre ba yaa ngi wax ak ñoom parce que bëree guñu ndeysaan ñoom final naa sa jël ndeysaan mi ngeen Diouf xar Diouf ziar naa la bëgg naa la ndeysaan Mamadou Diouf maam say borom min ma samba borom di doni Diouf borom fim la bu ordi wol bu ordi ngancen mu koy bàjjal mu koy torol mais Babacar tundinol du ñeexu ñebe de luy xew waaw Babacar fu mu lonku lambu am luy xew mi oh ko nambu oho zea gancel le zea borom jegem mbir rewek na cam ka ama fan